أرتجي منه في دارين أبكارا شكري لرب كريم من غنى سكارا وأرتجي منه في الدارين أبكارا كتاب شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وسكرا وذكارا وجهت وجهت sahri nabi sanadi lil akrami rafi wahabi zakara raja الزلات جملتها عني وتأثيره لدهر كوفا ok kay jërëjëf bismillah war nañu ñaanal lu ñu ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa di nuyu sunu sëriñ bi ñu fi fekk si di sëriñ Saalixu Mbàkke Lixlaas moom mi nga xamante ni moo woote bis bi te jublu ci cant sant nag dafa yéeme mag ñi dañuy wax ni ñeenti xaaj la yàlla sant boppam ñu ni alhamdulillahi alladi xalaqa samawati wal ard boo gis ci alquran yàlla ak sant boppam yàlla sant jaamam ni'mal abdu innahu awwaab jaam bi sant boroomam wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin ñeenteelu cant bi muy ñaari jaam yi santante ngir yàlla kooku xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko indi ku dul sant nit du sant yàlla mag ñi di wax yépp cant xamd ci làmmiñ la wa qul alhamdulillahi alladi lam yattaxid waladan wa lam yakun lahu sharikun fi lmulki wa lam yakun lahu waliyun min adulli wa kabirhu takbira allahu akbar waaye su ci jëf tàbbee mu génn maqaamay xamdu tàbbi maqaamay shukr imalu ali daawuda shukra cant yooyu yëpp ñoo ngi ñaan suñu borom mu dara tëwul ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci baaxu Cheikhul Xadim mu defal ñu ko ci bis bi ba mu walangaan ci képp kuy jullit ak fu mu mën nekk ci kaw suuf ak ci biir suuf sant nag dafa am solo lool ndax ku sant rek ñu doll kon ñoo ngi ñaan suñu boroom mu defal ñun dool lent googu te di ñaar it moom sëñ Cheikh Salih suñu borom gën ko may gudd fan ak wér ak sutura ak jàmm ak mucc ci ndog soxna may daaw nañu di wax su ngeen dee ñaan di leen ci boole xel mu dal yal na ko defal te defal ñu ko ñun ñëpp loolu moo doon ay kàddu yu ñu mënta woon ñàkk wax su fekkente ne am na genn xasida rek bu ñu mën a wax ñu wax ci tuuti te fas yéen daaneel kàddu gi sëñ Saalihu Mbàkke radiallahu taala anhu wax na ni xasida googu de léegi juróom-ñaar fukki junne jant la soixante dix mille jant yi ñu muri seen leer moom méngoog leeru muqaddimatul xitma xasida la boo xamante ne ku tedd wax na ni jàng ngi xeer la waaye ku ko yor sax ngaa kitaabu di yor la ko moom Cheikhul Khadim xasida la boo xamante ni néeg bu mu fanaan sax ngaa yeewu kitaabu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fanaan na ko ànd boo xamante ni salaatu ala boo ci jàng sunu borom bi sàkk ci aw malaaka bu lay jéggalul say bàkkaar te di la tibbul sunu borom yërmande ba mu ñëw ku tedd ki dafa mosoon wax mag ni dagam xam nañ luy garbu cullikaay mun ne mooy garab borom tool moo koy xam mooy yor garab boo xam day nekk ci tool bi suy ñëwee fa lay simmee ko suy xewlu fa lay xewlu suy dallu fa lay lool mu ne loolu mooy muqaddimatul xidma ci moom daal nag suñ suñ dindee ci liggéeyam li ciy des jarul bu ko dem génn kon xasida bu jar jàng képp ku toog jàng ko ci genn jotaay ku ñëw jox loolu loxo sañ naa kitaabu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sëñ Saliou teg na ci ku ko jàng ci genn jotaay ñu la daan yàgg teg sa kon xanaa boobu doy na rek jërëjëf kon ñoo ngi dellu di jégalu bu baax a baax nekkoon ci ay yitte moo ñu jomm na ñi di ko bokkaale ak kenn ànd ak julli ci ki nga xam ne moom la tànn mu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi daal wax ne amdaxu cheikhi habibi saaxibal kurama yuhdil muridina min jahlin wa min kadari maa ngi tagg sama sëriñ sama soppe ki nga xam ne dafa dajale tedd nga yu bëree bëree bëree bëri muy koo xam ne mooy gindi taalibe yi ci wëlif ñiy réer wala ñuy dugg ci benn nëx-nëx huwa alladi cheikhana saalihu mafqarana wa huwa alladi dalla bil ixlaasi kal xomari moom daal kenn la koo xam ne sunu sëriñ la turam mooy saalixu waaye mooy sunu puukarewu nit la koo xam ne moo tegtal ndaw ñi tegtal ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom yoon wii ñu tuddee lixlaas wa tax walladi dalla bil ixlaasi kal xamari lixlaas yu mel ni weer yu mel ni jant ci leeraay mooy ki nga xam ne moo ko tegtali moom sëriñ saaliwu cheykhun taqiyun karimun aalimun wariun ibnul karimi imaamul majdi dal busari sëriñ la boo xam ne ku ragal yàlla la moom lañu xam ci moom ku tedd boroom xam-xam la ku sàmm la doomi ku tedd la njiit la joo xam ne ju màgg la di boroomu mbégti duumu ayaa ixwatal ixlaasi fil amali naxwal fadilati cheikhil jiili dil basori ma daal wax ne maa ngi leen di dénk yéen samay mbokki daayira lixlaas ci ngeen góor góorlu ci jëf waaye nag lan la jëf ji jëm ñi jëmale ko ci ki nga xam ne mooy borom ngëneel gi mooy sunu sëriñ mooy sëriñu maas gi nga xam ne moo tollook ñoom waaye boromu gis-gis la ñu daal di ci teg ne chamsi shariati kam hada li saalikiha mudakkiran kulla yawmin siirat al badari jant la ci sharia moom sëriñ saaliwu ñaata nit moy ñoo xam ne gindi na leen ñoo xam ne sóobu nañ ci yoon waaye mooy ki ñuy fàttalil bépp bis rek siira yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam cheykhun xalimun saqiyun aalimun fatinun taalimuhu waadiun fi zulmi kal qamari sëriñ la boo xam ne ku lewet la waaye ku tabe la waaye ku am xam-xam la jërëjëf waaye ku ñaw la bu ñu waxee ku ñaw mooy koo xam ne dafa am gis-gis waaye njàngaleem tamit moom sëriñ saaliw lu leer péng la leeraay ba mu ngi mel ni jant boo xam ne dafa génn ci biir lëndëm sallal ilaahu alal muxtaari sayidina xayra solaati ma at taslimi kal bashari jullil ci gën gi yoneen bi nga xam ne moom lañu ñu tànn mooy sunu sàng mooy ki nga xam ne mooy ki gën ci mbindeef yi gan julli julli goo xam ne moo gën ci julli yi ànd ak sëlmal nag sëlmal goo xam ne dafay ànd ak mbégte ak tànn xarit ak tuddee doom ak bind xasiida saa soo koy def te tànn xoolu la ko bu baax danga ko réccu moo tax koy jëm sa xalimba jëmale ko fa na nekk koo xam ne ku ko yelloo la dalal basar malaya sar lu meen bu sar